وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ربنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nang sant yàlla bu baax moom mi ñu defal tawfiq defal ñu xéewal mais nu bokk ci jotaay bu barkeel bii di ko ñaan mu nangul ñu taxawaay ful li mu nuy fay ci jëf yu baax yu ñuy def ci koor bi di nuyu kilifa yi fi teew taaral jotaay bu mel nii sëñ Cheikh Abdou Qadir Saleh Mbacke sëñ Cheikh Murtada Saleh Mbacke bu ñu leen joxee sunu nuyoo ñu jaaralal ñu sunu ziyaara ci sëriñ Cheikh mu yàggal ñu ko ci xalif bi Cheikh Mountakha Mbacke ñaan yàlla ñoom ñeeg yàlla taxawu leen yàggal leen fi ñu nuyu sunuy mbokk sëñ bu Kébé bi nga xam ne wëllëre la mu yàgg di dox ci lu baax ak luy benn li jullit yi ak di leen dajale di nuyu suñu mbokk daara sëñ Abdoul Ahad nga xam ne daara xam-xam ak jotaayu xam-xam moo boole lu yàgg te ñu dajawaat fi tey di feddali wëllëre woowu xam naa jataay bi li tax ñu boole ma ci mooy wane ne jullit ñi seenu bennoo ak seenu jàppoo ndax bu doon xam-xam rekk jàpp naa ne bari nañu ko mën a taxawoo ci barab bi waaye bu ñu ma woowee ngir ma bokk ci jataay yi du xam-xam bu nu yaakaar ci man waaye feddale kóllëre ak jàppante ak wane ne jullit yépp ci seen daara yu wuute benn lañu dañu war a jokkaloo mbokk yi nga xam ne loolu ci ñoom la jaar noo ngi leen ciy sant maa ngi ànd ak suma mbokk sëñ Abdoulaye Siis muy suñu chef de quartier moom itam mu ñëw ngir bokk ci yiw wi ak ziyaara bi tomb bi nu bëgg a waxtaane nag tomb boo xam ne am na solo ci réew mi mais am na solo ci àdduna bi ndax bu fekkee ne àdduna bi am na lu ko màndargaal bokk na ci li ko màndargaal ñàkk dal ak yëngatu bu metti dëkk yi amoon yëngatu yëngatu bi yokku na dëkk yi nga xam ne sax ci dal lañu leen xame léeg am ñàkk dal bu jaaxal ñi ko bokk ba léeg ñu di ko utal pirin yu bari léeg ñu tombe ci piri mu baax léeg duñu tombe ci prix mu baax waaye li ñépp seetlu mooy ñàkk dal gi moom léeg mu am ba léeg-léeg mu jéggi sax dayo ci façon boo xam ni dana jaaxal ñu bari loolu ñépp am nañ ci sas waaye kilifteefu lislaam gi seen sas daf ci gën a feddaliku te ñoom rekk sax ñoo am saafara si ndax bu fekkee ne kilifteef dafa am jeexital ci njaboot dañuy wax ne kilifteefu lislaam moom la jeexitalam gën a xóot ndax yi kilifteef di def moom dana ko def ci sañ-sañ ak ci wéttali waaye dafay yekk foo xam ne fii kilifteef bu dul kilifteefu diine du fa yegg mooy dafay jeexital ci ruux te nit lu yegg ci ruuxam rekk mun na ko yëngal ci dimension boo xam ni du yegg feneen dañuy wax ne yiy motiver doomu aadama ngir mu jëf bari na waaye yiy xiirtal doomu aadama ci jëf yépp li ci gën a xóot ëpp ci jeexital mooy li nga xam ni ci diine la jóge di dem ci ruux ndax lu yegg ci ruuxu doomu aadama rekk day yegg ci léppam daf koy moom di ko defloo ci bu sañee ak bu sañul moo tax lii nuy waxtaane nii muy daluk réew mi walla daluk àdduna sax bu la neexee lan la ci kilifteefu diine di mën a def ngir loolu gën a jàppandal ñun dañuy wax ni dal walla jàmm bu la neexee ci xéewalu yàlla yu mag yi la bokk nga xam ni ku ko am am nga xéewal gu réy ku ko ñàkk itam dinga nga yëg ni ñàkk nga xéewal gu rëy te doonuy wax ne ñaar yi fi doomu aadama di def yépp ci kaw suuf mu di jaamu yàlla ci ni nu koy waxe ak dundal suuf saytu ko ngir nekkinu doomu aadama jàppandal ñu tuddee ko al ibadatu wal umran wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun wa ansaakum min al ardi wa staamarakum fiha nga xam ni jullit bu xëyee ci ñaari lef yooyu rekk lay yëngatu lefu digganteem ak boroomam mu rafetal ko lefu ñaareel bi mooy pénc mi nga xam ne ci la bokk te yàlla wàcc fi xéewal yoo xam ni kenn ku ne mën na dund ci xéewal yooyu ba mu doy ci yow sëg nan la ñuy fexe ba loolu jàppandal ñu tuddee ko al danuy wax ne ñaar yooyu bu mu ci mën a doon sarta la ngir mu mën a dox ak dal am jàmm am bu dal amul yokkute réew du am bu jàmm amul aussi jaamu yàlla gu ñu tal du yomb moo tax borom bi bi muy soññu waa Quraysh ngir ñu delloo ko njukkal jaamu ko li mu leen soññoo mooy xéewal gu mag googu mu leen defal te xéewal googu li leen wër yépp amuñ ko falyaabudu rabba hada albayt alladi atamahum min juin wa amanahum min xawf mu ne leen yéen a ngi ci ci ci keppaar goo xam ni ñi leen wër kenn xelam dalul kenn amul jàmm yéen seen xel dal na am ngeen jàmm bokk leen ci xeex kenn attaqué leen yéen a gi ci désert boo xam ni dara saxu fi waaye seen dund doy na sëg bon lu tee ngeen delloo ki leen defal loolu jukkal te jaamu ko donc xéewal gi mu leen soññoo nga xam ni mooy xéewal gu mag gi nga xam ne moo leen ko defal ñaari xéewal la mooy xéewalu jàppandalu dundin ak xéewalu jàmm ak dal gi nga xam ne ci xéewal yu mag yi la bokk yi jàmm ak dal ci jubluwaay yu mag yi nga xam ni mooy jubluwaayu diine la diine ji li mu bëgg a amal ñu tudde ko almaqasid ay jubluwaay yu mag benn ci jubluwaay yu mag yooyu nga xam ni daf ko bëgg a amal yàlla yebal ci ay yonant wàcce ci ay téere tëral si ay tëralin yu ñu war a topp yu ñu war a bàyyi loolu lépp mooy nu am pénc walla keppaar walla dëkk boo xam ne bi bu dal la mu mel ni dëkk boobu keppaar googu pecc moomu pour mu dal mooy kenn ku ne li nga moom sa àq ñu jox la ko la war a tegu ci kaw ci sa tegu tego tegandaay ñu teg ko ci sa kaw loolu bu amee dal day am jàmm day am déggoo day am moo tax boroom bi di wax naan laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna maahum alkitaaba walmisaana li yaquuma annaasu bilqisti nee na yonente yi defar pénc rekk laa leen yebale li nuy li nuy jàngale lépp pour nit ñi am comportement bu tax ñu am jikko joo xam ne ji day tax dëkkin wi ànd ak dal ànd ak jàmm te loolu mooy li ñu tuddee alxist mooy maandu parce que dafa am bunt bu ñu la tëjal bu ñu la waroon ubbil du am yëngatu boo gis rek ci penc am na lu ko waral benn ku tayal di tooñ créer situation comme ni muy xewee ci ci ci yu bari walla yamale gu yemamaay gu matul goo xam ne gii dana am ñu yëg ne am na tooñeel gu yàgg gu tegu ci seen ci seen kaw goo xam ne gi tooñeel googu war nañ ko dindi bu fekkee ne amul jumtuwaayu maandute bu ko mun a dindi amul buntu waxtaan yu ko mun a faj léeg-léeg mën nañu jëfandikoo kàttan gu teguwul ci yoon goo xam ne gi mën na jur yëngatu gu metti ci ci ci pénc yi mën na nekk ci wàllu politique mën na nekk ci wàllu social mën na nekk ci wàllu économie mën na nekk domaine yooyu yépp léeg sax mu nekk ci wàllu diine mais mun na nekk ci domaine yooyu yëpp benn bu ci ne am na loo xam ni njàmbat lu yàggalal goo xam ni li ko ing li ko li ko saxal mooy maandute yemale kenn ku ne yëg ne bokk nga kenn ku ne yëg ni jox nañ la sa àq bu manqué loolu dana wàññi loolu moo tax yonent yi nga xam ne naka jekk ñoom la yàlla teg ñu war a regle àdduna àdduna ku ko ku ko ku ko ku li may wax ni nañ ko téye te reglewuloo ko ci kilifteefu diine li la tàbb diine diine tàbb la ci doxalin woowu mënul régler problème mu justice sociale bu yàgg mënul régler yemale gu yàgg mënul régler kenn ku ci ne yëg ne sa ruux système bi mu ngi ciy liggéey parce que dañuy wax ne pénc moo gis ay nit la defarug nit ji nu mu gën a jage pénc moomu di gën a jag mais bu fekkee ne ay tëralin la ak luwaay yi xeli doomu aadama di tëral loolu mooy la Rukn ibnu Amir doon tuddee jawril adiyaan ah ji naa li nuxrij min ibadati al ibad ila ibadati rabbi al ibad wa min jawri al ila adli loolu yaa ngi koy dégg ne tëralin yi nga xam ne ci bànneexu doom aadama la jóge ak gis-gisu àddunaam bu xat tëralin yooyu dafay créer ñoo xam ne ñi dañuy am ay xejj ci dara ay privilégié bu nu ko waxee ci ci làmmiñu tubaab loolu lu mu gën a bari ci pénc ci gën a bari ci société muy andi yàqu-yàqu moo tax dal googu yitte bi mu am tax na maam sunu Ibrahima aleyhi salaam bi muy ñaan ñaari yëf yi nga xam ne benn bu ci ne dafa am dafa am njariñ dafa dafa mënul ñàkk ci nit mooy mu am jàppandalu dund mooy wërsëg mooy mu am tawxiid benn bu ci ne daf ko lëkkale ak ñaan dal ak jàmm mais mu jiital dal gi ak jàmm ji rabbi jal hada baladan aminan warzuq ahlahu min althamarat man amana minhum ba aya bi man amana minhum billahi ba aya bi jeex beneen bi rabbi jal hada albalada aminan wajnubnii wa baniya an dal asnaam gis nga bi muy wax ci amnu bi muy wax ci dal lëkkale ko ak wërsëg lëkkale ko ak tawxiid dafa ñaan dal ba pare ñaan wërsëg ñaan dal ba pare ñaan ñaan dal ba pare doon a ñaan tawxiid mooy mujj ci mucc ci bokkale parce que ñaar yooyu benn bu ci nekk bu dal amul loolu pour yegg ca du yomb bu nu nekkul ci stabilité nekkul ci jàmm du nu mën a liggéey lu créer yokkute ba wërsëgu yokkute wu yegg ci ñëpp bu nu nekkul ci dal ak jàmm mën nanu am situation wu même fitna sunu diine sax dikkal ñu moo tax alquran bi wax naan wal fitnatu ashaddu min al nekk ci ñàkk dal ba taluloo sa diine nee na loolu moo gën a rëy sax situation wu tuur deret ak tuur bakkan alquran di feddali jàppaloo walla dugalante gi am ci diggante ak jàppandal ci koom-koom ak yokkute ci réew ak dal goo xam ni dana tax nit ñi tal seen bopp bee mën a nekk ci situation wu jëm ci liggéey ndax dañuy wax ni lii ñu tudde yokkute réew ñu koy wax ci baatu tey ñu koy tudde développement du dara lu mooy ay jëf yu bari yu ñu dajale ci ay waxtu yu tegaloo yoo xam ne yi dogul benn yoon meññet ma muy jur meññet ma muy jur mooy yokkute mooy lu liggéey bi gën a bari ñi koy def gën a bari mu ànd ak ñooñu neexoog seen boroom loolu di gën a jur li ñu tudd développement moo tax alquran di ko tuddee barakaatu minas sama jëfu doomu aadama kese te neexuwul ak boroomam li muy andi ci pénc alal ju bari mën na am mais alal ju bari joo xam ne ji du ñépp koy jariñoo alal ju bari joo xam ni mën na am sax mais nit ñi du ñu am teeyu bakken gu tax alal jooju jariñee jariñ leen laqad kaana li sabain fi maskanihim aaya jannataani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum waskuru la baldatun tayibatun wa rabbun gafuur fa aradu ah fa arsalna alayhim saylal arim ba aaya bi jeex sabab bu fekkoon na suñu langage tey la dañuy wax ne dañu liggéey ba am e- abondance économique c'est-à-dire comme boo xam ne bii lu waay laal rek am loo dunde xam nga fii dañu lay wax croissance bi chiffres yi ni mu toll li am koom ci àdduna mbokk yi bu fekkoon ne nekkoon na ci loxo yoo xam ne yii dafa déggal boroomam bon kenn ku ne am nga lu faj sa soxla ba ngay dimbalee ndax bu yàggul rek bi crise bi amee ci ci ci tugal réew yu mag yi rek dañu dajale ci liquidité dajale nañu lu mat mille milliards de dollars loolu bokkul ak li tëdd ci banque yi nga xam ne bu ñuy wax lim bi nan la toll duñu am chiffre yu ñu ko waxe ay trillion la ñu lay wax cest à li nekk ci àdduna ci koom may na àdduna kenn ku ne nekk milliardaire di dem ak a ñëw waaye loolu bu amee te am ñu baree bari ñoo xam ne ñu loolu gisuñu ci seen bopp mais loolu am na lu ko waral mooy innal insaana la zalumun kafaar ja ca suuratu ibrahim bi nga xam ni nit moo jël akku mbokkom walla nit moo nasax ba jëlul li mu moom ci xéewal yi ko boroomam defal donc dal googu nga xam ne moom la moom la ñu koom borom bi moom lay wax wa daraba llahu matalan qaryatan kaanat aminatan mutma'innatan yaatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillaahi fa adaqaha llahu libaasa aljuu'i wal xawfi bima kaanu yasnaun dañuy wax ni situation bi xew ci àdduna situation wu comportement doomu aadama la ak melokaanam ndax borom bi ñaar yi mu diggaaleeg doom aadama yëpp def na ko mooy alhuda la diggaaleeg moom mooy wan ko fi mu war a dem ak li mu ko sant mooy wasaxara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an minhu mooy mu tàggatal ko lépp loo xam ne lii bind na ko mu nekk ci biiram te mu sant ko rek huwa ansaakum min al ardi wastaamarakum fiha loolu nag pour mu mën a am nit kooku dafa am fu nu koy jaaral dal googu dafa am yu tax léegi xelu ñu bari dalatuñ ci am na yu koy menacé bu fekkee ne kàddu gu baax na noonu mooy bi ci jëkk ci menacé dalu société yi dalu suñu réew bu la neexee mooy noo ngi ci àdduna boo xam ni dafa jëm ci di gën a jëfandikoo doole di gën a soxor di bari xadar loolu adduna bi yépp dafa mel ni yoon mooy parparloo ci piiti boo xam ne bii léeg-léeg day jéggi dayoo ba ki nga bokkulul gis-gis li ngay bëgg rek mooy mu jóge fi doo gis ci moom lu baax doo dégg ci moom lu baax safaanam rek ngay wër di ko di ko di ko di ko di ko feeñal nga xam ni man daa ila asabiyatin fa laysa minna yonent bi moo waxoon ni képp koo xam ni sa liggéey mooy fexe nit ñi kenn ku ci ne doo xajoo sa moroom ci parparloo ci waaso ci parparloo ci diine ci parparloo ci tariixa ci parparloo ci kuréel boo xam ne bii xel lalu ko saadata mu fattis tafadal xam-xam lalu ko yar bu ñu mottali aussi lalu ko yooyu itam ci yiy menacé di di di di ruur di yëngal jàmm ji nga xam ni wala dal gi nga xam ni amandi nanu ko ni nu fexee aussi ba àdduna bi ñépp di waxandoo bu jëkkoon àdduna kilifa yi ñooy wax ak boroom xam-xam yi ak ñi am cër mais léegi àdduna bu mujje bi ñu ubbi nii ñéppay waxandoo kenn ku ci ne mën nga toog yor sa portaabal bu ndaw wax ak àdduna tëju sa néeg walla nekk ci sa keppaar enregistré li ngay enregistré tasaare ko nga xam ne ñiy wax doo leen xam doo xam ban statut lan moo leen may ñuy wax ak nit ñi parce que kenn ku ci ne dafa am sa sa sañ-sañ fu mu yem am na ku mën a wax ak waa këram mais kàddoom ci këram rek la yem parce que responsabilité am génnewul buntu këram am na ku mën a waxu quartier am na ku mën a waxu dëkk am na ku mën a wax àdduna parce que ut sañ-sañam kilifteefam yegg na foofu donc fu kilifteefam yegg rekk kàddoom mun na fa yegg waaye léegi noo ci jamono boo xam ne bi ñi warul wax sax ñoo yor jumtuwaay yi di wax bu fekkoon ne dañu yem sax ci yoru jumtuwaay di wax di wax loo am njariñ sax xëy na mu tane mais lu ci gën a bari wax ji lii ci réer la tegu lii ci ñàkk yar la tegu ku ñu yarul bu waxee wax musiba ku xamul bu waxee wax musiba te ñooñu ñoom la ñuy moom ñoom la ñoom la ñuy gis naa benn waay boo xam ne bii léegi dafa am dafa am dayoo amul dayoo sax mais de toutes les nit ñaa ngi koy topp ñu jox ko audience lu ko ko jox gën a ñaaw nit ñi làmmeñ rek koo xam ne kii loo wax rek làmmeñ wu ñaaw la nga koy nga koy nga koy jox koo diggaale rek koo diggaalelul ku sa yoon nekk ci moom ak ku sa yoon nekkul ci moom mais ñooñu fexe nañu ba ñu jox leen lu tax ñu leen di déglu parce que jumtuwaayu jamono bi indi na loolu alors loolu aussi bokk na ci liy yëngal dal gi ak jàmm ji bokk na ci liy yëngal dal gi ak jàmm ji aussi xëcc ko politique bu àndul ak sago nga xam ne ki koy def day jëfandikoo lu ne ngir am tanoom ci wàllu politique donc seexluwul féewale ngir am li mu bëgg ci wàllu politik seexluwul aussi boole ngir gën a moom boppam nga xam ne yooyu yàlla ngi ñuy dimbali yii dama ko def laytaay ngir ñëw ci waaw kilifteefu lislaam bi lan mooy taxawaayam ngir jàmm jooju ñu amal ko bu ñu ko amalee ñu saxal ko bu ñu ko saxalee ñu sàmm ko ñetti fas jàmm dañu koy amal waxoon naa ne condition yu koy amal bokk na ci mbaandute gu matale bu nu ko amalee dañuy fexe ba mu sax mooy lépp loo xam ne lii daf koy yàq ñu ñu ñu ñu loolu ñu ñu dindi ko lépp loo xam na lii daf koy yokk doole aussi ñu di ko andi mais dañuy fexe aussi ba di ko aar mooy di seetlu di teel a wax boroom xam-xam yi dañuy wax ni fitna bu ñëwagul ñu néew ñoo ko xam mooy ñi yàlla defal ci ñoom gis-gisu leer di nga gis mbir moo xam ne mi ñu ngi koy ràbb dajaloogul nga xam ne mbir mii ñuy ràbb te dajaloogul de bés bu dajaloo ci kanam fii la ñu jëmee ñu ne bu fekkee film dafa dëgmal ku yàlla def ci yow leeru njub yaa ko mën a gis nee na bu xësee ba yëgsi nag ku ne mën na ko gis di ki wax waaye ñu néew a ko mën a xej bu xësee ba yëgsi ku ne mën nga ko gis di ci wax di ko analise waaye nee na ñu néew ñooy ñu ko mën a faj ñi koy faj nag waxoon naa ko sànq bi may tàmbali kilifteefu lislaam gi moo ci jiitu kilifteefu lislaam gi ñaari rol bi si jëkk mooy rolu rolu démbam cest li mu def ci li weesu ba nuy wax ne Sénégal am na aw doxalin woo xam ne wii Sénégal rek la am hmm? ñuy ba da dégg ñu ne dafa am lu ñu tudde modèle sénégalais parce que da amul fenn ci àdduna walla fi mu am bariwul waaw ah, c'est-à-dire yi yi war a tax ñàkk déggoo am bari na fi mais yooyu dafa am liggéey bu ñu def ba loolu amul jeexital bu rëy ba këree ñàkk déggoo loolu ab liggéey bu yàgg la ci cosaan ba tey ñëw bu ko defee ma ma teg ci seen rôle seen liggéeyu tey nga xam ne ñaari phase la mooy kilifteefu diine gi liggéeyam démb ba tax nu am nekkin wii nga xam ne néew na foo ko gisee loolu mën naa ko tënk ci ay tomb yu néew bi ci jëkk mooy ni ñu fexe ba tabaxaat senegale bi ba kilifteefam mu toxal ko ci kilifteef goo xam ni mënoon na andi xëccoo yóbbu ko ci kilifteef boo xam ne gi kilifteefu ruux la xam nga ku ne xam na ne avant suñu suñu kilifa yu mujj yi fii ci wàllu wàllu nit ñi ci seen cosaan ak seeni askan ak ci seeni kuréeli pénc yooyu rek lañu lañu askanu woon di ci dox boo demee tey ci ci ci réew yi ñu wër bari na ñuy xeex ngir waaso dañu bokkul waaso nii rekk parce que kenn ku ci ne sa waaso ngay wane ne ci la bokk ci nit ñi te yooyu ay péete la yoo xam ni dafa gaaw a yóbbu nit ci xëccoo péete boo xam ne bi ruux lalu ko ak defaru bakken rek féete boobu moo sañ téye nit xamal ko fi mu mën a yem ci péete dana bëgg li mu bëgg dana ko fonk dana ko sàmm dana ko jaral lu ne waaye dana bàyyi xel ko aussi que ni am na mbokk jullitam yoo xam ne yi am nañu seeni seeni seeni péete cest à suñu kilifa yi diine yi ni ñu defee ba génn nit ñi ci kilifteef bu traditionnel bi andi leen ci kilifteefu diine loolu lu ama am solo la ci sàmm jàmm réew mooy am nañu sëriñ soo xam ne bu nuy wax Sénégal yi yëpp gis ci seen bopp mais bu ñu nekkoon ci kilifteefu démb kilifa gi buy wax dafa am rek ñu mu mën a waxal ñu mën ko déglu moo xam ñi mu bokkal waaso la moo xam ñi mu bokkal espace la moo xam bokk gi lu ko lal mais kilifteefu diine gi boole na waaso yu nekk ci réew mi yépp boole na tendance yi nga xam ne ci wàllu social la nga xam ne nit ñi bu ñu xesee bokk kilifteefu diine daanaka mën nga wax ne yi leen teqale woon yëpp fàtte nañ ko